dafa gaawantu dem jëndi ay gànnaay parce que moom jàpp na ni suñ ko jekkoo gànnaayee yee matuloon moo tax ah il rien compris réew yi fi ëpp gànnaay ba bés ba askan wa jóge ne doyal na muy Égypte muy Algérie première armée presque d'Afrique muy Tunisie muy libi muy feneen ak feneen Soudan askan bu jóg taxaw ngànnaay téewu ko gendarme téewu ko policier téewu ko ñàkk xam-xam weesuul lool waaye ñëpp dégg ngeen ak gis ngeen li mu jënd ci ngànnaay lu xew ci réew mi rek mu gaawantu génne fépp nag parce que foog nañ loolu day fees bëtu nit ñi ba dootuñu ñeme ñaareel bi mooy mu dem jëli ay nit nome leen parce que jàpp na ni ña nekkoon ci bopp gendarmerie bi ak police bi matuñu woon peut-être wala defuñu li mu bëggoon mooy nañu tiire ci askan wi mu dem it ñoo xam ne jox nañ ko garanti ni ñoom dinañu réprimer ñetteel bi mooy mu dem bindaat ay loi daaw yéen gis ngeen yëpp mu andi fi benn loi sur le terrorisme normalement su ñu defoon manifestation léegi ñun ñëpp terroriste lañ renforcer arsenal juridique bi ñeenteel bi mu dem ba yokk périmètre d' intervention de certains corps militaire pour ñu mun a intervenir même dans la ville civile la vie civile loolu yëpp nee na ma ngay waajal boppam ci xeex loolu yëpp ma ngay waajal boppam. te bañ a jël en compte nag li nga xam ne xew na fi ci diggante bi may fàttali sénégalais nii Macky Sall bi mu fi nekkee léegi ma wax leen ñi nga xam ne faat nañ leen te ba tey enquête amut faat nañ leen li ma wax ni dafa am solo de faat nañ leen te enquête amul Fallou Sène Bassirou Faye Kékouta Sidibé Dominique Lopi Matar Ndiaye Elimane Touré El Hadj Thiam Mamadou Ndiaye Abdoulaye Wade Yengu Ibrahima Mbow Abdoulaye Timera Lamine Koita Seck Ndiaye Yamadou Sagna Mariama Sagna peut-être enquête am na de waaye ba léegi leeralaguñu mbir mi ne ñii lii moo leen rey te ñi ci ëpp nag manifestation lañ leen rey université place de l'Obélisque euh, Kër Massar feneen ak feneen lii tuutiwul de assassinat politique la mars 2021 fukki bat baat fukki bakkan ak ñett daanu fi Cheikh Wade Baye Cheikh Diop Cheikh Koli Famara Goudiaby Pape Sidi Mbaye Cheikhouna Ndiaye Sadio kamara Mansour Thiam Moussa Dramé Alassane Bari Bourama Sempa Sané Chérif Abdoulaye Mané ak Massiré Gueye mu taxaw fii ministre de la justice am wala des forces armées annoncé ni dañuy taxawal une commission d'enquête pour mu leeral lool ba tey ba sànq commission d'enquête ñëwul pourtant rapport département d'état bi génn fan yi nee na ñoom au moins sur les treize les dix gouvernement Sénégal moo leen rey c'est les forces de l'ordre ci lu leer nañ kon ñu jàpp ni c'est des assassinats de Macky Sall te nañu wax suñuy député ñu taxawal commission d'enquête parlementaire sur les assassinats parce que dafa jot juin 2022 ñu téye suñu list ci lu dul yoon depuis juin ba léegi première manifestation liste yi la ñu rey ci jaata Diatta Idrissa Goudiaby ñu saax-saaxe ko ne bal reyu leen ñu lànk ne dinañ def contre expertise contre expertise bi ñëw ne bal moo leen rey ñu ne procureur nee na confié na dossier bi à juge ba léegi dégguñu ci dara bal moo leen rey te li leer ba leer mooy bal bi ña amoon ay ngànnaay jàkkaarlook ñoom te doon tirer force de l'ordre yi bi ci mujjee mooy rey nañ fi François Mancabou ci anam yoo xam ne ba léegi leerul xëy nañu ñoo ko jël mu wér kéng di di aw waxambaane bu am kattan yóbbu ko xamuñu lu ñu def ak moom mu mujjee hôpital ba noonu la jaare ay mbokkam ne dañ ko rey ay avocat dugal ay procédure ñaar rey nañ fi Fulbert Sambou wala ñoom seen nit taxaw na ne moom confirmé na ni Fulbert Sambou dañ koo rey ak sax Didier Badji donte gisaguñu kooru Didier Badji gis nañ bu Fulbert Sambou ñoom ñoo taxaw ne dañ koo rey kenn ci ñoom wala ñaar sax leeralaguñu loolu ba léegi boo dajalee lii rek ëpp na trent personnes yoo xam ne ci nguuru Macky faat nañ leen sur des bases politiques te ba léegi kenn leeragul kon suñu wax violence kan la ñuy wax Macky Sall la ñuy lii musul am senegal ci diir bu gàttee ni soo jëlee ci wàllu nag justice ñaata nit lañu jàpp tey ci lu tegul yoon ay otage politique ma limal leen Abdou Karim Gueye Outmane Diagne Cheikh Omar Diagne te li gën a neex mooy léegi bu ñu leen jàppee démb ak keroog Pape Alé keroog bu ñu koy déglu ak dem bi ñuy déglu ñoom usmaan Diagne xam ngeen juge sec lu mu leen wax lu mu leen laaj woy xam nañ ni da seen seen diggante seen jegeñaale ak Ousmane Sonko léegi loolu mooy crime ci senegal ku xamante ak Ousmane wala nga je juge war naa taxaw ci kanamu nit naan ko waaw sa proximité ak Sonko loolu crime la wala délit la wala lan la bañ ciy jàpp nit Abdou Karim Gueye usmaan Diagne Cheikh Omar Diagne Papito Kara nga xam ne lan la def publication fee kii ñu jàpp ko publi publier ñu ne dafa imiter beneen journal nee nañ journal bi porté wul waaye procureur moom ñëw na ko jël si Ami ñu koy boole ci ay farce spéciale yu ñàkk fayda jël benn mère de famille téye ko boobu ba léegi moor Gueye Assane Dramé Ibrahima Diédhiou Abdoulaye Ndiaye Babacar Ndaw Pape Ousmane Seck Pape Mamadou du Madické Diop Abdou Silla Bouna Ba Yaya ndey Ndeye Sassoum Ndaw Pape Alé Niang qu'on vient de libérer Ndongo Diop nga xam ne liñ ko doon jàppee ne dafa doon filmer rëbës sama jour audition ñu ne dafa doon filmer rëbës Ndongo Diop Fadilou Keita ta kook du ndomb Diop sax comme dana benn la Diop Taïf la ñu jàppee loolu Ndongo Diop Fadilou Keita parce que nee nañ dafa publier ci affaire u Didier Badji te nit taxaw ne ci tele ne dañ koo rey xam naa ko ba léegi procureur woowu ko waaw 21 personnes 21 personnes tey ñi ngi ci loxo Macky Sall prisonnier politique lañu lan moo gën a violent lii te ñu war cee wax ci réew mi kon li may daanelee ñaar ba ñett la bu njëkk mooy maa ngi waxtaan ak magistrat yi nañu xam ni gannaaw yàlla mi nga xam ne lu ñu àtte dinañ ko layaat ci kanamam la ñu nekk ñun comme réew mu laïc lañu dañu ne la justice est rendue au nom du peuple mooy ñoom ci turu askan wi la ñuy àtte waaye ñu bëri ci ñoom dañ koo fàtte jàpp nañu ci turu Macky Sall la ñuy àtte am na benn magistrat français bu mag a mag mag dafa bind benn livre waaye livre bi phrase moo ci gën a jàpp dafa ne magistra au moment bu muy jël sa dernière décision dernière dernière pensée bi muy am mooy sa carrière moo ko bind de nee naa la dernière de magistra magistrat moment de prendre sa décision c'est sa carrière ana yàlla ana askan wi ana dëgg kon nañu delloo ci seen xel te ñu mayante doole ñoom parce que yéen journalistes yi fulla bi ngeen am ci seen biir corporation ñoom dañ ko war a am waruñoo bàyyi benn juge mu wéet ci décision am ba nguur war koo mun def pression ba mag Macky war koo mun a def pression ba ñu war koo mun a jënd wala ñu menacer ko ba dootul àtte selon son intime conviction nañu xam ni askan bi leen teg foofu reconnaissance askan boobu rek la ñu mun a am ba léegi ñu ngi tudd Kéba Mbaye pourquoi ñuy tudd Kéba Mbaye pour ay actes yu mu posé ak discours mémorable bi mu wax fii ci université de Dakar loolu mooy reconnaissance nit ku nekk nag ci liggéeyam nga dem ba nekkatoo fi ñu lay tudd di la tuddee ay amphi di la tuddee ay salle parce que da ngaa matoon li ngay def te ñu xam ni lépp nit ñi dañuy am responsabilité parce que député yi ñu jàpp ni ñoom mun nañ ci am responsabilité article 12 code pénal lan la wax seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire tous procureurs généraux ou procureurs de la République tous substituts tous juges qui auront provoqué donné ou signé un jugement